asalaamaaleykum suñ mbokkut téléspectateurs yi ñuy suivre si biir Equivox TV tey ñoo ngi am mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Lopez doon membre fondateur bu mouvement barke bi au niveau national doon nit koo xamante ni ràññee neen ko si biir syndicalisme universitaire mu doon aussi entrepreneur di liggéey fi nga xamante ni moom mooy Sénégal ñoo ngi lay dalal ci biir Equivox TV Lopez di kontaan si li nga xamante ni accordé ñu ko nga xam ne temps bi bëriwul. événement bu ñu jugee di màggal Touba aussi ñoo ngi ñaan yàlla lépp lu nga xamante ni jàmmu yàlla yi ñaaneen ko fa rek yàlla na ko yàlla nangu di si nuyu ki nga xamante ni moom mooy la xalif général des Mourides di wax ne activités yi commencé waat na waat suñ numéro bi nga xamante ni moom la ñuy tàmbalee waat moom mooy avec Ibrahima Lopez Lopez ñoo ngi lay dalal ci biir Equivox TV. Euh, alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. Mm-hmm. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mm-hmm. Seydi Ali ñu ngi lay nuyu di. di nuyu seeni téléspectateurs yu mhm. Equivox TV yëpp mhm. euh, di nuyu sénégalaises ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi suivre à mhm. travers le pays comme à travers la diaspora jërëjëf ñu gis euh, mouvement bi nga xamante ni moom mooy mouvement barke bi lan mooy genèse mouvement bi ak euh, pourquoi le mouvement barke waaw mouvement barke bi li ko indi mooy ay citoyens sénégalais lañ Euh, ay citoyens sénégalais yoo xam ne euh, xool nañ histoire u Sénégal. Mhm. Euh, jàngee nañ fi yëngatu nañ fi ci comme ni nga ko waxee sànq ci mouvement élèves mouvement étudiant. Mhm. dans le mouvement politique man particulièrement militant LD laa woon. à l'origine LD MPT ensuite mhm. LD mais dama démissionné ci parti boobu en en octobre 2014. Euh, depuis boobu ba léegi nag euh, defaatuma benn activité politique euh, mais maa ngi doon réfléchir di xalaat mhm. di waxtaan ak aussi ay nit mhm. particulièrement des gens de ma génération mhm. pour que ñu xool ensemble nan lañ mun a apporter suñ contribution ci doxinu Sénégal au-delà du Sénégal même ci doxinu Afrique parce que liñ gis mooy ne suñu réew yi Euh, tardé nañ trop par rapport ak euh, yeneen réew yi nga xamante ne nii ñoo nekk du l'autre côté. Mhm. et kenn mu si mënu ci am solution aussi dul ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñun ñooy sénégalais yi. Afrique tardé nañ trop Sénégal tardé neen si sa kàddu ñu gis depuis indépendance ba léegi saa su nekk ce sont les mêmes discours politiques. saa su nekk sa son les mêmes partis politiques ñi nga xamante ni ñoo jàppee seen bopp intellectuel ñu jàpp ne ñoom ñu bëri si ñoom surtout ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk ñoom ñooy tardeel askan wi bon changement ngeen pare pour apporter ci géew boobu. waaw ñun li wax mooy euh, euh, gis nga ni nga ko waxee noonu ñun dañ ne depuis 1960 ba léegi gis nañ ne Sénégal doxul. Euh, ni mu waroon a doxee. si yan fànn. ci ci ci fànn yëpp parce que man barki démb maa ngi jógee Maroc mais boo demee boo demee boo boo boo demee ci réew boobu mhm. da gis différence bu baax ci ci seen tali yi. ci seen circulation yi. infrastructure ci seen infrastructure commencé na am ci réew mi en général infrastructure commencé na am ci réew mi. mais euh, boo déggee ñu naan tardé. mooy fi nga waroon a nekk tey. Euh, fi nga waroon a nekk il y a il y vingt ans. tey nga fay doog a agsi donc loolu mooy loolu mooy loolu la ñuy tuddee tardé. am na réew yoo xam ne euh, ñun ñoo leen rawoon bi ñuy jot indépendance. te léegi. kooku yor réew nga mën a citer comme exemple boo boo demee Corée. par exemple ay. Singapour. am na réew yoo xam ne nii ñun. Euh, euh, bi ñuy jël indépendance pare woon nañ pour def lu bari mais boobu ba léegi da ngay gis ay crise politique entre des personnes par exemple la crise de 1962. mun na am bu ñu dalutoon. mun nañ dem fu sori te ay intérêt crypto personnel ay nit rek moo ko indi. Euh, dañoo nekk ci jamono joo xam ne suñ dirigeants yi dañoo war asseoir sa benn leadership boo xam ne un leadership de partage. Mm-hmm. li wax démocratie de partage un système démocratique de partage et de solidarité. partage de quoi et de solidarité de quoi. xam ne démocratie bi du nekk rek xëccoo. Mm-hmm. xëccoo ay ay palte xëccoo ay nguur. mais euh, démocratie bi dafa war a nekk euh, sama mbokk bi mu ngi mu ngi mu ngi dund est-ce que añ na est-ce que reer na est-ce que am na lu mu lekk démb est-ce que est-ce que est-ce que dans les quartiers dans les villages dans les ci ci ci yi gën a suufe ba ci gën a kawe naturellement ñi nga xam ne nii ñooy diriger nag ñoom ñoo war a am euh, sens de l'organisation ak sens de de l'anticipation pour euh, saytu yooyu yëpp jéem a xool nu ñu koy organiser di tenir compte ci nit ñëpp ci sénégalais par exemple man dama wax ne par exemple un président de la république euh, pour man suñ delloo ci ci ci ci dëgg su amee benn sénégalais bu reerul rek te fekk nangu naa liggéey mën naa liggéey te fekk nangu naa liggéey mën naa liggéey dara jotu ko mais def na effort yu yu nekk mais amul lum reeree rek mhm. c'est la responsabilité du président de la république pour man président de la république warta reer tant que mhm. euh, euh, assuré wu wul ne sénégalais yëpp am nañ lu ñu reeree esprit de loolu reeree xëy moom moo koy maye moom lu ñuy wax liggéey te suñ waxee liggéey état mënul créer emploi mënul sénégalais bu nekk mu jox ko emploi mais état lu moom moom mooy carrément créer les conditions pour sénégalais bu nekk am emploi am loo mën a xëyee di si lekk di si naan ban gis-gis nga am ci loolu. donc yow laaj nga tontu nga état mm-hmm. mooy créer condition yi mm-hmm. nga xamante ni environnement. bi nga xamante ne nii day tax nit ñi. Mm-hmm. mais loolu day tax mais soo ne rek après nga nar ko jiñ la président de li ma wax avant may wax loolu dama ne sénégalais bi nangu naa liggéey. nangu naa yëngatu. jóg na def ay effort mais cadre boo xamante ne nii permettre na ko permettre na ko mu gagner euh, deux cent cinquante francs bu mu reeree mhm. amul ko donc te yooyu mais mais attends Sénégal nga nekk di ko wax Lopez. Sénégalais boo mënti gis nga xamante ni deux cent cinquante na ko c'est-à-dire soo demee bay liggéey war nga li nga xamante ni moom mooy sa étude du nga xam fii lan moo fi dox xam lan moo fi doxul ba soo jigee di yëngatu nga mën a am. loo am oui mais aussi ça pose problème de la formation. ça mhm. pose de l'éducation. Mhm. donc euh, étude marché du n'importe qui moo ko mun a def. Mhm. du ñëpp ñoo mun a def sa euh, étude de marché soo ko xoolee sax ñi mën a def étude de marché c'est une infime minorité des Sénégalais il faut carrément renverser la tendance ñun li ñu jàpp wax nañ ko si njëlbeen gi depuis 1960 dañ jàpp ne le système euh, euh, économique système politique système yi ñuy fonctionner yëpp c'est système hérité de l'Occident système la système la boo xam ne mhm. ci ci euh, tugal lañ ko jëlee ci ñi ñu nootoon ci ay jamono lañ ko jëlee jàpp nañ ne am nañ indépendance mais boo gisee ni ñuy jëfee ak ni ñuy waxee ak ni ñuy organiser suñu suñu développement suñu économie ak suñ suñuy infrastructure suñ suñuy institution surtout da ngay gis ne euh, dafa continuer li nga xamante ne ni moom moo fi nekkoon jamono bi ñuy coloniser te ñun dañ jàpp ne loolu il faut que ñu soppi ko il faut ñu ñu ka ñu ñu ñu soppi euh, li nga xamante ni dafa mel ni dafa niru prolongement euh, colonisation il faut déjà sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy jiite ñu jàpp ne c'est des du Sénégal ñuy jiite ay Sénégal ñuy jiite Sénégal bu war a jóg jëm kanam mais c'est pas nekk ñoom ay tubaab wala ay représentants tubaab bi surtout France yoo xam ne nii ñoom ñoo nekk fii mhm. di organiser ak di jiite Sénégal suñ suñ njàng par exemple soo xoolee man jàng naa. yow ci contexte mondialisation buñ toll. am na sénégalais yu nekk France. am na sénégal yu nekk États-Unis am na français yu nekk Sénégal am na ñu nekk fu nekk. pourquoi nga taxaw carrément tudd France ne carrément ñoom dañ fa war a jógee jàpp ne carrément yow non bokk si ñuy wax France dégage wala am na sax ñu am double nationalité am na ñu nekk sénégalais nekk français nekk Amérique dégage waxuma personne dégage parce que ñun nous mm-hmm. vivons un monde moderne boo xoolee ñun dañuy wax ne mm-hmm. Sénégal mm-hmm. Sénégal Afrique mais avec ouverture Sénégal pour les A ba pare ak ah, ouverture doog a mën a am enracinement mm-hmm. ak ouverture mënuñu développer tant que ñu ngi euh, njàng ja njàngu jàmbur ñu ngi làkk-làkku jàmbur ñu ngi am comportement yoo xamante ne nii ci jàmbur lañ ko jëlee mm-hmm. ñu jàpp ne loolu il faut que Sénégal am ay réformes yoo xam ne ce sont des réformes à l'intérieur mooy réformes yi gën a xool réforme profonde réforme profonde boo xamante ni Sénégalais bu nekk dina gis boppam biir Sénégal yow tey ban rupture ak ban démarche wala ban objectif ngeen am parce que su ma gisee seen slogan da ngeen solidarité ak prospérité question de la paix adduna bi yëpp ñoo ngi koy wax surtout si sous région bi ngeen bëgg ñëw taxaw ne jàmm force mu am mais jàmm boobu force mu am force ngeen jiital askanu Afrique askanu Sénégal yan jéego ngeen ciy def. oui mais parce que euh, ñun euh, li ñu wax mooy. Mhm. su fekkee ne jàmm amul déjà. Mhm. kenn mënul def dara. Mhm. donc environnement bi il faut mu dal. pour environnement bi dal foog nit ñi. am ban politique ngeen liggéey ban politique ngeen di proposer les Sénégalais bu ñu xiifee bu ñu xiifee soo soo xoolee yenn yenn yenn événement yi nga xamante ne nii mooy indi insécurité hmm. ci ci ci suñu réew yi yëpp hmm. euh, xiif moo koy waral xiif ak aussi bëgg a toog si nguur bëgg a yàgg si nguur gi waaw loolu loolu beneen loolu beneen programme la dafa am yoo xamante ne nii euh, yooyu moom daf daf fiy dañ c'est-à-dire jël nguur rek pour jël nguur hmm. yooyu dañ dañ ñun dañoo dans le mouvement barke bi ñun dañoo bugg ne dañoo bëgg loolu dafay jeex loolu euh, dootul amati cest li ñuy wax naan euh, ñun dañ jàpp ne 1960 ba léegi ci façon wu def politique beeg jiite askan yi nga xamante ne nii mooy Sénégal ak ak ak Afrique. Mm-hmm. récréation la ñun dañoo jàpp ne li fi xew yëpp ci diggante bi récréation la il faut sonner la fin de la récréation pour ñu def vraiment un, leadership de développement un leadership de de de paix. un leadership de solidarité. <laughs> mais c'est les Sénégalais à travers le mouvement barke bi nga xam ne. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne Sénégal moom réew mu barke la. ci mm-hmm. tur. ci wàllu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi dëkk ngànk ko muy kilifa diine yi surtout mhm. ak kilifa aada yi nga xam ne ñoom Sénégal ni mu mel nii bañ am stabilité par rapport ak réew yi ñu wër mhm. ñoom la su politique yi bëggee taal Sénégal toujours mhm. ñoom ñooy ñëw pour fay ko te pourtant ñoom nekkul ne ñoom ñoo ŋànk Sénégal ci ci sur le plan temporel ci baatin ñu ngi ñaan ñu ngi wax ñu ngi digle mais euh, déjà seen seen langue yi ñuy liggéeyee rek euh, Sénégal jëlul ko en compte ci ci yenn niveau yi man dama gis Euh, constitution Sénégal euh, la langue officielle du Sénégal est le français dafa war a jóge dañu war a indi ay langue de travail suñu administration waruñ liggéey ay langue de travail dañu war a wax la les langues de travail du Sénégal sont par exemple le français l'arabe le wolof parce que soo xoolee di nga gis ne ñetti langue yooyu suñ suñ kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo tax Sénégal nekk Sénégal ba léegi seen langue de travail arabe la euh, quatre-vingt-quinze pour cent des Sénégalais sont des musulmans ban mooy kan mooy musulman bu dégg arabe yow man keneen keneen man sama ñàkk dégg arab gi neexul ma mun na am keneen mun na am keneen donc dans notre système éducatif il faut loolu noonu ñu fexe ba nga xamante ne nii dès le bas xale yi dañuy nekk ci niveau boo xamante ne nii dañuy am li ñu soxla yëpp nga xam ne dañuy permettre ñu tabax Sénégal mhm. ensuite euh, njàng mi ñuy jàng temps bi dafa gudd parce que système français bi daf ñu indil ay façon njàngin yoo xamante ne nii daf ñuy encombré dañ lay jàngal loo soxlawul bàyyi li nga gën a soxla hmm. donc dañuy indi yi ñu soxla ñu dajale ko jàngal ko xale yi xale yi gaaw rapidement jàng boole ko ay métier à travers un système global nga xam ne su ñuy am vingt ans rek day fekk pare dañ pour li déjà avant sax vingt ans hmm. soo demee euh, fële na le euh, euh, à Porokhane daara maam jaara hmm. dañuy xale yi dañuy jàng alxuraan mokkal pendant ñu ngi jàng métier ku pare def ay soupe def ay teinture def ay nang te ñooñu ay jigéen lañ mm-hmm. donc imaginez si les garçons aussi aussi étaient éduqués de la même façon mm-hmm. avec le même système boo xam ne état mooy jël lépp en charge organiser ko def ci les moyens de l'état nga xam ne oustaz yeeg jàngalekat yeeg yëpp ku nekk da ngay xëy dem liggéey fekk na xam nga ne tu as la garantie que état moo la jël en charge mais euh, débrouiller bi gars yi di ci dëkk bi ak oustaz euh, yenn góorgóorlu yi partout ci loo xamante ne nii état mënoon na ko organiser coordonné ko ñëpp gis ci seen bopp et dans un élan de sursaut national ñun ñëpp ñu ànd nag taxaw taxawaayu sénégalais taxawaayu góor mm-hmm. taxawaayu euh, nit kuy pare pour parce que ñun man ñun li ñu jàpp ci mouvement barke bi mooy Sénégal non seulement dafa war a développer mais mooy réew mi nga xam ne fii mooy war a nekk locomotive bi nga xam ne mooy ñoddi Afrique pour jëm nag ci taxawaayu Afrique boo xam ne dafay fer dafay def face Euh, ak àddina boo xamante ne nii. Mhm. Afrique daf fay développé dem nation maa bërki de maa ngi dégg président muy wax ci ci. Nations Unies mhm. il wax na plusieurs fois daf koy répété di ko. le discours est bien discours bi baax na parce que Nations Unies dañ ko war a réformer man ba may def cm mhm. laa doon wax waxi réforme Nations Unies. xam nga te boobu j'étais très jeune xam nga âge CM2 12 ans 13 bi gis nga sa bopp si président. Sénégal non ci discours bi mu def ci Nations Unies mhm. dans le gis naa ci sama bopp bien sûr mhm. africains yëpp gis nañ seen bopp mais seen doxalin si seen biir biir dëkk exactement malheureusement malheureusement des fois discours bi dafay waroo ak actes yi nga ne politique yi lu ñuy wax ak lu nekk si terrain bi dafa am politique yëpp du politique yëpp kan ak kan yëpp kan ak président ak kan mën si même président de la yow kan ka mën a cité ne bokkul si ma ne même président de mhm. fois mu wax dara ba pare discours bi euh, conforme actes yi. comme mais des fois mu wax loo xamante ni non tu peux citer. par exemple bu waxee ne par exemple euh, euh, euh, système éducatif mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi fexe ba nga xamante ne nii day am modernisation des daara. Mhm. gis nañ mu poser ay actes créer ay daara moderne mhm. mais loolu. création des daara modernes je suis tout à fait d'accord mais mm. tey da joxe exemple ci Proxaan da ne ñu fay nekk di jàng ba pare dañuy def formation est-ce que création daara moderne boobu noonu jël neen aspect yi nga xamante ne moom la xale bi war a soxla ngir soo amee vingt ans mu doon ku war a doon mën a taxawu réewam non non non donc discours bi ak acte bi des na non non discours bi ak acte bi des na posé xam nga xam nga mun nga wax ne dinaa def nangam nga war a def nangam muy jar cent mhm. nga def ci nga def ci dix francs mhm. nit ñi mënuñu wax ne defoo dara mhm. nit ñi mënuñu wax ne defoo dara mais li nga def doyut par rapport ak li nga waroon def. mën neen xaar ëllëg mouvement barke bi jàppale président de la République du Sénégal. Euh, bon ça dépend ci contexte bi muy war a ça dépendra ci contexte contexte bi muy war a doon. Mhm. contexte bi bi bi bi ñuy war a liggéeyee ak moom. lay dépendre mouvement barke bi day def lancement am. Mhm. le 2 octobre. Mhm. après le lancement du mouvement barke bi. dinañ définir suñ position claire. ci échiquier. politique nationale bi. Mhm. définir suñu position. mouvement barke bi dafay dem langaa langaamu si parti politique yi wala mouvement barke bi dafa nar a taxaw pour laaj. non duñu langaamu ci kenn mun nañ ànd ak ku nekk mais langaamu moom munta nekk ouverture mouvement barke bi soo xoolee tour bi rek mosoo koo dégg c'est c'est c'est tout à fait original donc barke Sénégal bi lañ bëgg Sénégalais bu nekk yëg ko ci boppam. Mhm. ba àddina yëpp yëg ko te loolu munoo cee exclure benn Sénégalais. donc il faut ñu liggéey ak sénégalais yi nga xamante ne nii déggoo nañ ak déggoo nañ ak ñoom ci gis-gis soo demee ànd ak ki nga xamante ni ñoom ñoo nekk si pouvoir bi doo ànd ak opposition mais force nga am am nga am position partisane oui oui mais ba léegi waxuma la damay ànd ak pouvoir wala damay ànd ak opposition mhm. loolu euh, mbooloo mi moo koy parce que nit ñi dañuy taxawal mouvement aussi suñ taxawalee mouvement ba bi suñ demee ba si kaw après le leader mooy nekk si kaw pour gérer ses non ñun suñ sa personne suñ mouvement bi bi mhm. ñu taxawal nii loolu c'est clair mu leer Lopez yaa ngi si exclusivement si biir Equivox TV. loolu il faut mu leer. no wax ñu lan mooy sa ambition. non ou bien sa ambition mouvement lan la. non non l' ambition du mouvement c' est de développer le Sénégal et pour développer Sénégal nous pensons que il faut ñu jël le pouvoir politique. Mhm. il faut ñu jël le pouvoir politique. suñ toogee diriger ko indi changement yeeg réforme yi. dans en profondeur ak rupture yi nga xamante ne ni euh, suñu dirigeant yu bëri moom la ñuy ragal parce que ñu ngi ragal kenn wax la dara kële wax la fële dara kële wax la fee dara ñun ragaluñ Europe ragaluñ France ragaluñ Amérique ragaluñ kenn ñun yàlla lañ ragal te bu ñuy liggéey dañuy liggéey ak sénégalais yi ànd ci loolu fu ñu war a teg suñu tànk pour Sénégal jëm kanam moo xam xali safara la moo xam. lu mu mën te mouvement bi dina bi nga xamante ni mu am. ci réew mi Euh, réew mi dafa am on peut pas mënu ñëw mënuñ ñëw dinañ indi ay réformes. Mhm. dinañ indi ay réformes sur la loi dans la à de la constitution mais loi bu ñu fi fekk dafay dal suñu kaw jusqu'aux réformes su réformes yi amee aussi mënoo mënoo munoo tamit ne dangay ne dangay soppi ba pare te doo respecter loi yi. Mhm. kon laïcité même lois injustes dañ koy combattre mais mais respecter ko. mais mhm. combattre ko les lois justes ñu respecter ko mais nag dañuy réformer réformer pour. créer euh, créer système boo xam ne dafay mun a indi les bases du développement yi nga xamante ni wax naa la ko fi sànq surtout sur l' éducation éduca suñu système éducatif yi baaxul il faut ñu soppi ko et soppi ko en profondeur. Mhm. il faut que sénégalais yi dans leur écrasant ci seen ci ci ñi gën a bëri ci sénégalais yi gis seen bopp ci njàng meeg njàngale mi. Mhm. Euh, euh, ba nga xam ne nii. bu ñuy commencé am 15 16 ans rek dañuy am métier mën a liggéey waxuma laa nag vingt ans jëm kaw bu ñu nekkee 20 ans jëm kaw ñun suñ diriger suñ jotee Sénégal 25 euh, ans yi si topp dañuy yóbbu ay astronaute ci ci ci kii bi loolu lañ bëgg. yow soo soo diriger Sénégal ay savant. soo soo créer Sénégal. parce que Sénégal dëkku savant la yow xam nga ci dara. waaye dëkk savant la xam nañ xam nañ suñu bëri. savant yooyu cohésion nationale yow cohésion nationale boo ñu wax mooy ñi nga xamante ni ñoo ngànk Sénégal ci wàllu baatin loo ñu wax. ak coow nu mu bëree Sénégal ku si mel ni El Hadj Omar Fouti Tall maam El Hadj Abdoulaye Niass El Hadj Malick Sy Cheikh Ahmadou seen liggéey moo tax Sénégal am stabilité bu mu am te si aux alentours de Mali lu fay xew yëpp déggaguñ ko Sénégal même su fekkee gars yaa ngi wax gars yaa ngi wax loolu dañ leen sant leen si gërëm mais pouvoir spirituel dañoo gis ne tey tey tey nu mu demee nii ak pouvoir temporel seen jaxasoo est-ce que askan wi gis neen si seen bopp. Euh, askan wi est-ce que gis neen seen bopp si jaxasoo pouvoir temporel ak spirituel. il faut que pouvoir temporel ak spirituel ñu liggéey ci ci ci niveau boo xamante ne nii kenn ku nekk da ngay occupé wul li nga li nga war a occupé mais dañuy am complicité boo xamante ne nii day tax li baax fii ak li baax fële ñu boole ko. mu jëmale réew mi kanam yeneen yi nga xamante ni. safaan la est-ce que yaa ngi bàyyi xel si révolution française moo ko waraloon. révolution française li ko waraloon moom mooy prêtre bi ak politique yi saa su nekk dañ doon toog di waxtaanee li nga xamante ni di jël lu bëri ci li askan wi lu moom di ko dundee ba français yi mer dam dal seen kaw. révolution française révolution euh, révolution mais suñ ko nee def fii Sénégal respecté nañ kër diine yëpp respecté nañ ñëpp mais est-ce que di jox cër kër diine yi kër diine yi tamit est-ce que seen taxawaay lan la war a doon ci réforme yooyu noonu non ñun moom suñ jëlee réew mi mhm. këru diine yi mhm. dañuy am doole lool ci réew mi yokk ci lañ amoon parce que gis nga këru diine yi ñoo yore réew mi ñoo yore Sénégal du dinañ créer système boo xamante ne nii euh, këru diine yi da ku ku dugg Sénégal wala nga génn ko wala nga dégg ko rek da ngay xam ne fii moom ñi ngànk diine ji am nañ fi doole parce que Sénégal dëkku diine la quatre vingt dix pour cent des Sénégalais am nañ lu ñu gëm. te ëllëg suñ la waaraatee li nga wax li nga wax tamit. si ngay nekkaat. mais bien sûr man lu may euh, euh, en fait li ñuy ni ñuy ni ñuy mouvement barke bi daal. comme son nom l'indique. Euh, mouvement la boo xamante ne nii barke Sénégal bi la bugg a génnee te loolu ay conviction yu profonde la ci ñun. te lépp lum laaj. lu dëppoo lépp lum laaj lu dëppoo ak njub ak sell ak sellal gis nga ko nee nañ li ñuy def yëpp dañ koy teg ci trilogie éthique transparence ak solidarité. Mhm. donc yooyu moom ay ay questions yu fondamentales la ñun dañuy am sax li ñuy tuddee la charte euh, du leader. parce que ñun dañ jàpp ne mouvement barke bi tout le monde est leader il y a des leaders dirigeants et des leaders adhérents mhm. parce que nous considérons ko ñun li ñu jàpp mooy sénégalais yëpp ay leaders lañ naturellement mhm. dans sac ci Sénégalais bu nekk am na talent leadership buy nelaw ci yow loolu ñun dañ jóg pour yee ko. non dans chaque individu du monde. jeex na mais su war a rawatina Sénégal. Mhm. ñun li ñu jàpp mooy. Sénégal sa objectif seen objectif lan la objectif yi mooy développer Sénégal. Mhm. développer Sénégal nag am na buntu yu bëri yu yu nit mën a jaar ci wàllu institution ci wàllu économie ci wàllu par exemple ñun mouvement barke bi dañ ne buñ buñ buñ buñ buñ jëloon réew mi agriculture sénégalais yëpp. dañuy dañuy dañuy nekk daanaka dañuy nekk ay baykat du du du ñun par exemple man bu nekkoon président Sénégal du ma fal ministre bu nekkul boo xamante ne nii ci sa en dehors de say liggéeyu ministère. Mm-hmm. dañ lay jox benn responsabilité ci benn zone Sénégal moo xam boo fa dëkkee moo gën mais moo nga xam nga dëkk fa wala nga ñàkk fa dëkk nga xam ne da dem foofu fexe ba nga xamante ne nii mbay mi ak euh, li aju ci moom. dafay suqaleku ba nga xamante ne nii doo dem pour bay yëngatu ko sa bopp wax internet si da nekk si internet te dina des te ëllëg mën neen ko génneewaat doo dem ci kii de xoolal doo dem ci ci ci àll bi pour exploiter baykat yi de mais da dem pour dimbali leen ba nga xam ne baykat yi dootuñ bugg sax ñun génn seen dëkk yi ku si ñëw dakaar dangay daw yàkkamti pour dellu su dëkk nit ñi di génn Dakar di dellu ci àll di nga gis fii ñun suñ yoree réew mi di nga gis fii nit ñi di génn dakaar comme pas possible di dellu ci àll bi parce que day fekk àll bi naag na ba li fa war a nekk yëpp nekk na fa. sa message lan lay doon à l'endroit des Sénégalais ak si aussi le de ce journée booy lancé ce mouvement. waaw ñu ngi au Sénégalais yëpp ci journée euh, de lancement boobu le 2 octobre euh, à partir de 15h30 à Kaolack au cœur de ville dafay am benn benn conférence publique boo xam ne. Euh, ci financement des partis politique la ñuy waxtaanee ku ñuy wax docteur Abdou Aziz Mbodj moo koy introduire. Mhm. Euh, et puis après nag ñun ci la ñuy def la déclaration des leaders fondateurs. Mhm. bu mouvement barke bi. Euh, ginnaaw loolu ñu ngi au sénégale yëpp ci jàmm. Mhm. ci liggéey pour jëmale réew mi kanam mais tamit ci xam ne mënuñoo jëm kanam tant que ñu ngi utiliser tant que ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ko teg ci yëf jàmbur yu ñu indil fii. système politique bi. constitution bi njàng mi ak ni ñuy doxee ni ñuy toogee foog ñu soppi ko rek pour nag ñu mun a ànd ak ñëpp jëm ci kanam su ko defee ñëpp suñuy nawle lañ Amérique suñu nawle France suñu nawle France suñu xarit la. parce que ñëpp ñëpp ànd à égale dignité tous les pays du monde à égale dignité à partir des Nations Unies. parce que Afrique dafa war am droit de veto Nations Unies. merci beaucoup ñu gis Magal Touba bu ñu génnee dafa généré li nga xamante ni moom mooy deux cent cinquante milliards ci alalu réew mi. ban lecture nga si def en tant que mouvement barke. deux cent cinquante milliards ci. deux cent cinquante un milliards Magal Touba moo doon loo xamante ni pouvoir purement spirituel teg ko ci biir réew mi. loolu mooy tekk ne mooy mooy li ma doon wax sànq fi mu toll nii Magalu Touba bu fekkoon mën nañ ko def tous les jours euh, xam nga luy indi deux cent cinquante milliards vite fait. Mhm. soo ko mënoon soo ci mënoon. le fondateur du mouridisme qui est un soufi bokk ci famille boo xamante ni soufiste yi la c'est-à-dire que euh, am na loo xamante ni carrément làqu na ci biir soufisme dafa war a génn quoi. te li si gën a li si gën a neex mooy lii yëpp moom waxoon na ko waxoon na ko junj ko dig ko nit ñi ñu ñu ñu def ko gis ko. Mhm. moom boo ko jëlee moom loolu la soo jëlee ñeneen ñi mel ni moom ci Sénégal yëpp. Mhm. loolu la. imaginel nag du point du côté du temporel. ñëpp meloon noonu. mais kon Sénégal day naaw. te loolu dafa war a am ñun loolu mooy suñu objectif daal le mouvement barke bi. ju jëmaat ci li nga xamante ni foofu la ñuy jeexalee événement boo xam ne àdduna bi ñoo koy xaar àdduna bi yëpp mooy ñëw Sénégal que ça soit Tivaouane Ndiassane Medina bàyyi ban baat ngay joxe si gàmmu gi. gàmmu gi eh, ñun eh, suñ suñ sëriñ mooy Maolana Cheikh Ibrahima Niass aroomu ridal baari li nusrati diini yi ba brisu ji di jadi li misaala mm-hmm. mu ne eh, tim naa montagne yi tim géej yi dox fu nekk pour wan génération bu bees bi mm-hmm. lan mooy jox leen exemple exemple mooy lan exemple yi li ma nekkoon mm-hmm. ñoom ñu nekk ci li ma nekkoon mooy jàng jàngale liggéey jaamu yàlla xam xamle tabax boo tabaxee état boo xamante ni yaa ngi ko teg ci njub ci jàng ci xam-xam rek développement am te développement bu amee ñëpp gis seen bopp épanouissement am su ko defee euh, nit ñoom nekk si jàmm parce que nit ñi suñ kenn ku nekk bu la sa sa bopp bu bu say bu say affaire bopp matee doo tal di dugg si. jërëjëf rappel ban moo ngay wax ci Equivox TV noo gisee liggéey bii Equivox TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm seen dirigeants yi ci initiative bi parce que initiative yu mel nii mooy indi développement mm-hmm. ci initiative bi euh, ñu ngi ñaan yàlla nag ci ñun duñ dara waaye euh, bërki démb lañ jógee Fass ziare kilifa gu mag gu ñuy wax Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ñu ngi ñaan ci barkeem Equivox TV mm-hmm. euh, na nekk groupe de presse boo xamante ni dañ koy dégg faw ci Sénégal ak ci àddina groupe de presse international bu raw sax RFI ak France 24 bu raw euh, yeneen groupe de presse yi nga xamante ne nii ñu ngi leen di dégg ci àddina bi yëpp Al Jazeera amiin yaa rabbi ban kàddu ngay tàggatoo boo mbokk téléspectateurs yi euh, sant yàlla euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm téléspectateurs yi ci temps bi ñu jël pour seetaan suñu wax yu ñàkk solo yi <laughs> di leen jéggalu bu fekkee ne yëkkati nañ fi ay kàddu yoo xam ne kenn ci sénégalais yi ak fu mun munti nekk. Mhm. yëg na ci lu ko lu ko lu ko métti ñu xam ne ay nit lañ rek nit moom. Mhm. Euh, principe bi mooy dafa war a nekk ci lu normal. Mhm. mais li muy juum la dafa bëri. ñu xam ne njuumte la li ci rafet nag moom xam naa kanam yu rafet yi yi jàkkaar lool la. merci beaucoup ñooñu ko tëbb ñu ngi sant yàlla bu baax. jërëjëf di la euh, gërëm yow tamit aussi suñu rakk nga gis nañ la li ngay def <laughs> ak liggéey bi ngay liggéey ñu ngi lay suivre depuis bu yàgg depuis au moins dix ans ou même plus oui, oui, euh, oui. depuis jamiyatu Ansaarud-Din élève ensuite bi nga ñëw université mhm. ba fii nga nekk nii mhm. amul benn yoon bu suñ bët teggeeku si yow merci beaucoup te ñu ngi gis ne li ngay def euh, surtout conviction mhm. saa boo defee dara bind Ali am doomu ñooro euh, ñun ñëpp loolu lañ gëm moo tax ñu ne Sénégal il faut mu nekk Sénégal Sénégalu Sénégalais yi. buy buy taxaw nag développer monde bi yëpp. merci beaucoup ñun suñu ambition dépassé na sax Sénégal. ñun addina bi dañ jàpp ne Sénégal moo ko war a développer dans la paix xam nga développement am na mais ba léegi ay guerre ak ay problème yu dul jeex ñu ngi am. Mhm. dañoo bëgg nag développement bu ànd ak jàmm. jërëjëf bi Sénégal moo ko war a développer dans la paix foofu la ñuy tàggantoo yow pour tey. di wax ne am na yeneen numéro yoo xamante ni mën neen si toogaat ak événement yu ñu mënti jëm di leen jox di daje ci yeneen jotaay yi nga xamante ni mooy ganu Equivox si biir Equivox TV di sant di gërëm suñ technicien suñ jarbaat moo duxulee Habib Bibar Seck bi nga xamante ni lépp luy logistique moom moo ko yor fi nga xamante ni moom mooy Equivox TV suñ technicien Balde ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax ngeen baal maa ax maa ngi souhaité une très excellente fête d'anniversaire ak sama rakk Ousmane nga xamante ni étudiant la au niveau de la faculté des sciences dëkk Nioro drib di fête anniversaire am ñoo ngi lay ñaanal yàlla tawfeex di ko ñaanal étudiant yëpp ñëpp am réussir ci Sénégal parce que Sénégal su ñëpp réussir Sénégal bi nga xamante mooy Sénégal jàmm prospérité ak solidarité moom mooy ñëw di leen baalu ah